أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey ñu toll ci suratul baqara ñuy jël tey aaya 278 279 280 281 mu nekk ñeenti aaya yu ñu borom bi subhanahu wa taala di jàngal juróomi mbir xam ngeen ne aaya bi ñuy jël tey aaya gënu ko doy waar ci alquran lu tax mooy ñii sunu borom subhanahu wa taala tey di waxal mooy ñi déclaré yàlla guerre ñu jël seeni ngànnaay sol seeni tëni ànd ak seeni mbokk ne dañuy xeex ak yàlla te mooy lekkkatu riba yi dar su passé waxoon nañ lan mooy riba waxoon nañ riba ñaata façon la waxoon nañ lan mooy àtte riba ci lislaam riba mbokk yi àtteem mooy def xaram dafa bokk ci bàkkaar yu rëy yi juróom-ñaar yi yonent bi di lim naan juróom-ñaari bàkkaar yi yàlla du ko baale riba ci la bokk alquran tere na ko ñeenti saar ci alquranul karim ñeenti saar borom bi subhanahu wa taala daf ci wax mbiru riba suratul baqara am na juróomi baat ci riba ala imran yàlla wax na ko fa benn yoon nisaa i yàlla wax na ko fa benn yoon ruum yàlla wax na ko fa benn yoon riba alquran def ko tere sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam tere bal yonent bi dafa rëbb lekkatu riba yi ak ñi garanti riba ak ñi koy bind ak ñi koy témoye yonent bi nee na ñooñ ñépp a yem laana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akilu riba akila riba wa muwakkilaha wa katibaha wa shahidayhi wa qala hum sawa moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax dafa wax arriba sab'una hububan yonent bi nee na riba juróom ñaar fukki musiba la juróom ñaar fukki jali bàkkaar la riba mu ne aysaruha an yankiha rajulu umu bi ci gën a yomb mooy nit sëy ak ndeyam nit sëy ak ndeyam moo gën a moo gën a moo gën a moo gën a moo gën a yomb riba nit sëy ak ndeyam bi ko jur bàkkaar boobu moo gën a oyof bàkkaaru riba yenent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dirhamun yakuluhu rajulu wa huwa yaalam ashaddu inda allahi taala min sanatin wa salasina zaniya yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na benn dërëm bu nit lekk ci riba moo gën a bon ci yàlla ci min sittati wa salasina zaniya ci juróom benn fukk ci juróom-ñaar fukk ak juróom benn njaaloo benn benn benn dërëm bu nit lekk moo gën a dangereux ci yàlla min sitta wa salasina zina kon bak riba fu mu jëm yàlla bëgg ko alxuraan daf ko dàq sunna dàq ko ijmaul umma dàq riba ijma ajma al ulama fi kulli al usur ala hurmati riba yahud yi dañoo dàq riba ci seen diini diiney cre- nasaraan nanguwu ko kon riba mbokk jullit yi alxuraan daf ko bañ tey ñeenti aaya yi ñuy jël li ñu ciy jële comme njàngin bu ci njëkk mooy wujubu tawba min arriba wa min kulli almaasi tuub ku doon lekk riba dafa war a tuub su demee ba xam ne moom lekkkatu riba la woon dafa war a tuub daytalu bàyyi riba bàkkaar yëpp dañ ko war a tuub waaye rawatina riba amul benn bàkkaar bu nit di def lu dul pour nga yàlla baal la fa nga tuub rawatina bàkkaaru riba ñaareel mooy armu sirru ala almuamalat arribawiya yajibu alxaakim an yuhaaribahu bu ñu amoon tey nguurug lislaam ñoo am dëkk bu ñuy àttewoo diine lislaam am ñu fa nekk di lekk riba di liggéey ci riba di ko jëflante bañ a taxaw lan moo war mooy nguurug lislaam gi dafa war a jàpp ci loxo gaa yooyu di lekk riba dóor ko maanaam nguur gi dafa war a xeex ñoom pour ñu daytalu ci lekk riba waaw kon su fekkente ne nguur gi dafa war a tere lekkkatu riba yi est-ce que kon nguur gi war naa lekk riba wala mooy sunu problème tey ndeysaan mooy ci gouvernement yuy lekk riba la ñuy dund riba 100 pour cent nee na ñooñu bi dar bi ala yadayhi dañoo war a dóor seen loxo xataa yatruk riba ba waa ji bàyyi war a bàyyi riba fekkoon ne tey nguurug lislaam la képp kuñ fi signalé ñu ne day liggéey ci riba nguur gi dafa war a téye ci loxoom dóor ci yat pour mu bàyyi lekk riba ñetteel ci li ñuy jëlee ci aaya yi mooy man taaba min riba la yuzlamu bi agsi bi bil axdi min raasi maalihi képp ku tuub ci lekk riba bu fekkee da nga doon jëflante riba di di ci liggéey nga tuub kenn du la tooñ sa bopp alal dañ la koy delloo lan mooy bopp alal ji mooy da ngaa amoon un million di ci liggéey ci riba ba mu nekk trois millions li nga moomoon ci cosaan mu set dagan mooy ñaata un million bi dañ la koy delloo kenn du la tooñ dañ la delloo sa bopp alal leneen li nag moomatuloo ko waaw bu daganut bu ci sax bàyyi xel parce que moomoo ko sa alal nag cosaanu alal ji nga amoon bopp bi loolu dañ la koy delloo lële nag bu yeboo nga bàyyi ko ñu def ko sarax boo xamante ne dañ koy jox miskin yi waaye yow bul ci sax yaakaar tiyaaba juróomeel mooy wujubu zikri daarul axira dañu war a préparer di fàttaliku alaxira guddi ak bëccëg sunu xel alaxira daf cee war a nekk wastidaadi laha bil imaani wal amali saalix waaye fàttaliku alaxira rek du doy toog di waxtaane àllaaxira rek du doy mooy foog ñu jëf préparé pour àllaaxira àllaaxira nag dara du fa jëriñ jullit ëllëg lu dul ngëm al iman ngëm gu ànd ak jëf wala amal as-salih wa tark riba bàyyi riba wal maasi ak bàyyi mooy yàlla kon mbokk yi sunu tënkee juróomi mbir yi ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala mooy li ñu fas yéenee jàng ci ñeenti aaya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يقول المولى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا Abdullah ibn Abbas nee na saa yoo déggee baat bi taxawal yow la nuy waxal taxawal déglul lu tax daf lay digal wala daf lay tere amul ab julit bu war a am fit dégg ñu ne yaa ayyuhal ladina amanu mu continuer ci lim doon def lu tax yaa bi xarfu nidaa la dañoo woote yaa ee loolu mooy xarfu nidaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi gëm ku woote yàlla ñan lay woo ñi ko gëm lu mu leen di dee mu ne ittaqullaha moytu leen yàlla allahu akbar moytu leen ma yàlla bu ne nan ko moytu lu war ku tol na yàlla mu ne moytu leen ma ittaqullaha mooy moytu leen yàlla ñu gaay di ko firee ragal leen yàlla waaw ki ngay moytu danga ko ragal ki ngay moytu ngeen ñaar ngeen di daje ngay moytandiku danga koo ragal bu ngeen yemoon doole doo moytu yàlla kan la yemal doole dem leen ci armeel yi ngeen xool kan la yàlla yemal doole ndeysaan allahu akbar mu ne yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi gëm ittaqullah ay xaafu iqaabahu na ngeen ragal mbugalam mbugal yàlla xëjul ci nit ban cër moo gën a tuuti ci yaramu doomu aadama ban cër ah kawar moo gën tuuti de ci yaramu doomu aadama bëñ baaraam yooyu ñoo gën tuuti bu ci yàlla yëngalee dara rek nga am problème xoola bëñ bi nañ la bàyyi ba ngay tëdd guddi rek ñu yëngal ko balaa fajar yow day mel ne ci yow adduna bi dafa tukki allahu akbar dama gën a tuuti ci sa yaram bi mais mu yëngu rek yow dootoo mun a nekk nit dootoo mun a normal kon bu ci yëngalee juróom nag bu yëngalee gémmiñ gi bët bi bu yëngal bakkan yi yëngal nopp yi yëngal foo jëm bu xëytee tànk yi foo jëm ndeysaan moo tax góor gi góor gi dafa toog juróom ñetti fukki at am ay doom yu am alal ndeysaan moom mu am alal nekk ci li ko neex ba bis rek mu xëy rek bëgg a tuur ndox rek mënul tuur ndox bëgg a saw mënul saw doom yi jël ko yóbbu hôpital ñëwoo docteur yi docteur yi tiim paa bi assisté ko ba paa bi tuur ndox métit bi daal di deñ docteur yi génn ndeysaan wax doom yi ah alhamdulilah paa ba paa bi normal na léegi mun ngeen ñëw quoi wax ak moom ñu ñëw doom yi ku nekk génne sa carte bancaire génne chèque yi ñuy bindal docteur yi ay chèque di leen remercier ku nekk ñu gërëm docteur bi doom bu nekk bëgg ngaa maye xaalis parce que sa papa léegi mi ngi ci jàmm paa bi jékki-jékki rek jooy doom yi ne ko papa looy jooy léegi métit bi jeex na docteur yi dimbali nañ la métit bi jeex na léegi papa looy jooy mu ne jooy ma lool de du li ma docteur yi dimbali laay jooy de ñu ne lan la mu ne juróom-ñetti fukki at yàlla di ma dimbali may tuur ndox kenn dimbaliwu ma kenn gërëmul yàlla tey docteur bi jàppale ma benn fan rek yéen ñoom ngeen di gërëm docteur bi ñun ñu toog fii ñaata at la nam ku nekk waxal sa bopp ñaata at nga am kan moo lay dimbali ngay xool ku la dimbali ngay dégg ku la dimbali ngay noyyi tey bu sa bët yi amoon problème rek nga dem ci benn docteur rek 15 jours mu hôpitalisé la fexe ba nga gis rek après lay wax docteur bi chotët ma non non xoolal te ndeysaan ngay jël numéro téléphone am di ko gërëm waaw yàlla nag tànk ñun bi moo xëy suba rek si jóot alhamdulilahi rabbil alamin ci yàlla bët yi ma may alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi dégg kenn ju takkaluma ay écouteur maa ngi gis maa ngi dox maa ngi tuur ndox maa ngi lekk maa ngi naan est-ce que xam ngeen am na ñoo xam ne instant bi may wax ak yéen pour ñu lekk dañ leen di pikiir dootuñu lekk ceeb léegi dañuy jël gis naa jigéen joo xam ne gis naa jigéen joo xam ne dañuy dem nduggi marché de dañuy dem nduggi billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi alazim maa gis jigéen joo xam ne dañuy dem ndugg marché ndugg bi ni mu neexee lu nekk ñu jënd mais bu ñu ñëwee dañuy undi machine loolu ñu jënd carottes yeeg pombiteer yeeg fruits yeeg nangam yi dañ koy nal dañ koy nal même bu ñu ko toggee dañ koy nal ba mu nekk ndox ñu def ko ci pikiir pikiir pikiir bu mag ndaw si dañoo bënn fii fii lañ bënn put gi lekk bi mënatul jaar ci gémmiñ gi mënatul jaar ci baat bi ci fii lañ bënn put gi ñu takkal ko ko fii ci ŋaam bi kole ko léegi raakol bi fii la ñuy dugal pikiir bi ndeysaan ñu def ci lekk bi ci pikiir bi di pikiir ndànk muy dem biir bi gis naa loolu gis naa loolu tiim naa loolu nit mu ko def tiim ko nii xoolal loolu gis ngeen ba tàyyi koo xam ne mënatul tuur ndox walla fu mu toog day toog ak mbuus mbuusu saw ñu takk ko ci tànk bi gis ngeen ba tàyyi koo xam ne saw yi dañoo kale ci naq bi mënul saw gis naa jigéen joo xam ne ci ay année 78 79 80 sama dëkkandoo boo xam ne jigéen naq bi dafa am problème mu bëgg a tuur ndox mënul tuur ndox ñu yóbbu ko hôpital principal ñu leen di laaj 300000 pour pour ñu assister ko mu saw ji kër gi indaalewul xaalis mu del siwaat géejawaay di ut si xaalis bala muy delluwaat fekk ndaw si dee ñun yàlla moom nuy musal ci loolu lépp kenn du sant yàlla dana yaakaar ne sant yàlla mooy wax alhamdulilah wala xëy rek jël sa kaamil wala ñëw julli si loolu déedéet loolu loolu fal force la amma sant yàlla nag yëg-yëg la booy yëg sa digganteeg sa boroom nga xëy si jóot sant yàlla fu kenn fekkewul delloo yàlla njukkal xam ne dafa am lu mu la defal loo xam ne defalu ko kenn leneen yi nii lii lii war la lii dafa war par force la parce que ay jaam lañ lële nag da ngay toog gis xool gis mbindeef yi ndeysaan xool yow yi la yàlla defal nga delloo yàlla nga sant ko xam ne dëgg-dëgg nga nga nekk ku am reconnaissance loolu sax yow mii yow say doom ak sa njaboot gii suñ la ko defalu rek nekkal bàyyi ci kër gi ngay def lépp te xale yi joxuñu la benn cër kenn du la nuyu kenn du leen papa di la romb guddeeg bëccëg kër googu nooy def di nga noppi de pour kër gi am jàmm waaye kër gi doo am barke problème bi ci kër yëpp tey mooy paa yi dañoo kontaanul ci kër yi noppi moo tax kër yi amul barke waaw waaye nag paa yaa ngi noppi kenn du wax parce que da nga bëgg jàmm bëggoon nit ñi dégg la bëggoon nit ñi yab la bëggoon nit ñi dégg sa wax moo tax kër yi amul barke nit ñi dañuy dund ni ci kër yi rek togg yi ñuy togg ci kër yi sax amul barke xam ngeen ceebu démb ak ceebu tey xam ngeen ne du benn wax leen dëgg ñëpp a changé barke amatu ci xaalis bi sax xam ngeen amatul barke xaalis démb xaalis tey pourtant benn billet bi moo fi nekk de mais xam ngeen ne sax amatul barke kon borom bi nee na yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi gëm ittaqullaha moytu leen yàlla xaafu iqaabahu ragal leen mbugalam bi taatihi ci topp ko na la ñuy ragale yàlla mooy moytu mbugalam topp ko ci def sunu digganteeg moom protège barrière boo xam ne day tax ëllëg yowmal qiyaam du nu mbugal moom yàlla wiqaayatan taqiikum ghadabuhu wa iqaabuhu dañu war a def suñu digganteeg suñu yàlla benn barrière boo xam ne ëllëg yowmal qiyaam day tax yàlla du nu mbugal mooy comme ni wax ci alquran qu anfusakum wa ahlikum naaran musal leen seen bopp ak seen njaboot ci safara loolu ñun ñëpp la wax musal sa njaboot yàlla ne ittaqullaha moytu leen yàlla wazaru ngeen bàyyi utruku bàyyi leen maa baqiya li des ci seen dund minar riba ci liggéey ci riba wala lekk ko wala jëflante ci wala wala wala wala wala wala bàyyi leen riba bàyyi leen riba maa baqiya indakum lépp lu des ci yéen minal muamalat ar ribawiya bàyyi leen bépp jëflante lépp lu ngeen doon lekk képp ku ngeen doon liggéeyal te xam ngeen ne liggéey bi sellul yiwul riba la yàlla nee na bàyyi leen ko wazaru bàyyi leen tamaaman maa baqee li des seen dund mina riba ci lekk riba ah lii nag lii ñan la yàlla di wax yahud yi nasaraan yi ban baat la yàlla wax ñi gëm yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi gëm ba pare yow nga bëgg a nekk jullit yàlla di wax ak yow nga ne doo bàyyi te yow nga ne jullit nga moo tax gis nga daggit li des ci aaya bi dan la yàlla wax in kuntum muminin béykee gëm ngeen yàlla in xarfu sart la in su fekkente ne ngëm googu ngeen di wax guddeeg bëccëg ne ay jullit ngeen kon bàyyi leen lekk riba kon looy dégg ci aaya bi mooy kuy lekk riba gëmul yàlla lu tax gëmul yàlla bàyyiwul riba yàlla dana bàyyi leen riba bu fekkee gëm ngeen yàlla nga gis tey sénégalais yi nee nañ 15 pour lan 95 pour cent musulman 95 pour cent yëpp seen alal yaa ngi ci banque yi ñuy lebak riba kes riba guddeeg bëccëg jëflanteeg riba banque riba jël bukki suuli bukki ah xam ngeen jël bukki suuli bukki di loolu moo xew ci dëkk bi jël bukki suuli bukki loolu la ñuy wax da ngay jël bukki suuli bukki même sax boo demee marché ngay jënd portable da ngay gis ku la ne doon portable nga bëgg mu ne xaaral ma ñëw daw na dugg ci biir marché bi loolu leen bàyyi la nga dem jëndee sa bopp déedéet moom day day da ciy bëgg am ñaar dërëm wala juróomi dërëm yëpp ay riba la te ngay gis kuy jaay daan na lii de téeméer laa koy jaayee mais bu dee dama koy lebale ñaar téeméer la loolu riba la riba xel yu bëri la waaye ñaar ñoo ci gën a rëy mooy yi ñu doon jàngale samedi passé yàlla nag nee na kuy lekk riba gëmoo yàlla in kuntum mu'minin su fekkee gëm ngeen yàlla ñu ne ah kon mu ne wazaru ma baqiya min riba kon bàyyi leen riba loolu mooy sart bi ah in kuntum muminin bu dee gëm ngeen yàlla kon wazaru ma baqiya min riba kon bàyyi leen riba fekkee gëmu leen nag lekk leen yow yàlla bu yemoon ya- lii rek doyoon na yàlla pour mu tere ñu riba lii rek doyoon xool yemu ci loolu mu ne wa in lam tafalu su ngeen ko deful na ngeen yëg ne fa azanu déclaré ngeen bi xarbin ci xeex min allahi ak yàlla wa rasulihi ak yonentam kuy xeex ak yàlla foo jëm ah kuy xeex ak yàlla ban asamaan moo lay tiim ci ban suuf moo la nga nar a dox kuy xeex ak borom bi xool leen àddina bi bi mu tàmbalee ba léegi ñi doon xeex ak yàlla lu ñu ci jële am nañ amoon naa benn ustaas yal na ko yàlla yërëm nee na ma bu ma duggee ci kaaba gi rek dégg ñu ne allahu akbar allahu akbar mu ne abu jahlin fen na de ah waaye abu jahlin fen na waaye lii la bañoon mu tasaaroo affaire bi tasaaroo na daf ma daan wax Saïd ma ne ko naam mu ne ma yàlla bu santaanee ne la defal ma bu yàlla rëddee ne la jaaral nii nga effacé rëdd bi mu rëddaat ne la jaaral nii nga effacé rëdd bi day xar suuf si ñu dugal la mu rëdd sa kaw ne jàll leen nit ñi jàll waaw yàlla ne ma bàyyi leen lekk riba su ngeen ko deful fay lam tafaalu su ngeen ko deful bu ngeen déggul li ma wax bàyyi lekk riba na ngeen yëg ne fa azanu ay i'lamu bi xarbin min allahi wa rasuli déclaré ngeen yàlla guerre kuy guerre ak yàlla nag kon wax milu silaahakum jël leen seen ngànnaay acca entre leen ba am doole dem leen États-Unis ngeen yëkkati ay poids ngeen ñëw façon arme bu leen neex ngeen takk ndax ngeen yëg ne yàlla ngeen di xeexal fa azanu bi xarbin min allah moo tax aaya bi moo gën a garaaw ci aaya alquran te fenn fii dong la ko yàlla waxe amul feneen ñi xeex ak yàlla ñii kese la mooy lekkatu riba yi ku bàyyi lekk riba rek dangay xeex ak yàlla ndeysaan borom bi subhanahu wa taala nee na jël leen seen ngànnaay yi wala yanfaukum silaahukum te xam ne ngànnaay yi du leen jëriñ ndax yàgg-yàgg yéenay dem teer yàgg-yàgg yéenay daanu fa azanu déclaré ngeen bi xarbin ci xeex min allahi ak yàlla wa rasulihi ak yonentam yan leen yàlla musal ci xeex ak moom kon lu nu war mooy dégg wax ji rek daal di koy topp tuub dellu ci yàlla subhanahu wa taala xam ne moom borom bi mooy borom mu ne wa in tuubtum su ngeen déggee li ma wax nag ngeen deltu ginnaaw daal di tuub falakum am ngeen ruusu amwaalikum seeni boppi alal bu dee da nga amoon junni labale ko di ci fayeeku juróomi junni la nga ciy fayee ko ñeenti junni wala ñetti junni wala ñaari junni dégg nga yàlla li mu wax nga taxaw sa junni bi dañ la koy delloo waaye la nga ci tegoon nag moom dafa araam bul ko jël waaye kapitaalu alal ji cosaan bi loolu dagan na yow yaa ko moom ñu delloo la ko falakum am ngeen ruusa amwaalikum baada tawbati ginnaaw ba ngeen tuubee maalakum amatu leen illaa rasul maali lu dul bopp alal ji allazi indal mutadayin ci mu loolu nga xam ne moom la ki yor bor yor fa xuzuhu jël leen loolu kese watruku ziyaadata riba bàyyi leen li ngeen ci yokkoon te riba la junni bi li nga ci yokkoon bul ko jël bul ko jël de bàyyi ndax dafa xaraam xamal ne te tey te tey ci àddina bi est-ce que am na loo mën a laal te amul riba la ilaha illallah ah yéen fu ñu jëm yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na riba dina tasaaroo ba ku ci lekkul sax di nga lekk ci pënd bi maanaam di nga pënd bi dina la fekk nga toog ngay noyyi nga ŋaang mu ne sarax sa biir nga lekk ci ndax riba bu tasaaroo tey ci àdduna bi xool leen riba nu mu bëree xool leen ni mu duggee ci biir kër yi ni mu duggee ci àddina bi xoolal ni ni ko nit ñi gëmee te riba amul njëriñ yéen a ngi nii xam ngeen ne Europe ñu ngi ci crise États-Unis ñu ngi ci crise lan moo ko waral ñoom ñoo ne seen banques yi li ñuy lekk riba moo tax ñu daanu ñoom ñoo ko wax ba ñu jël seen experts yi di yóbbu Indonésie wala fële Malaisie pour ñu jàng ji système islamique ndax xam na ne riba baaxul kon man na yàlla yërëm julliti mu ne wa in tubtum bu ngeen tuubee falakum am ngeen ruusu amwaalikum seeni boppi alal la taslimuuna wala tuslamuun duñ leen tooñ kon nag bu leen tooñ dañ leen delloo wa in tubtum bu ngeen tuubee bi tarki riba ci bàyyi riba falakum ruusu amwaalikum am ngeen seen boppi alal laa xeyr amu leen leneen bopp alal ji rek laa taslamuun laa taslimuun duñ leen tooñ bi axsi ziyaada ci jël la ca dolleeku woon waaye wala tuslamuun duñ leen tooñ bi naqsi ci wàññi min raasi maalikum ci seen alali alal boppi alal ji kon gis ngeen lislaam maandoom mooy yow li nga amoon rek lan la war a jox li nga amoon li nga moom loolu lan la war a jox waruñ cee yokk waruñ cee wàññi 5000 nga amoon lan la delloo sa 5000 10000 nga amoon lan la jox sa 10000 1 million lan la jox sa 1 million leneen lépp bàyyil dafa xaram baaxul bul ko jël borom bi nee na wa in kaana bu fekkee dafa nekk zu usratin waa joo xam ne dafa am jafe-jafe borom xat-xat wa in wujida bu fekkee nekk na ki nga xam ne dafa amoon bor fii xaalatil i'saar ci jamonoy xat-xat mënta fay moom la naan zu usratin su fekkee waa ji dafa am jafe-jafe am xat-xat mënta fay kon fa naziratun nañ xaar ila maysaratin ba yàlla yombal ay mbiram wala al islam waa ji junni la woon xam nga riba bi li tax mu egg fukki junni junni la woon mu egg fukki junni lu tax xam nga nit ñi dañoo wéru koo lebal junni mënulaa fay nga dem jël junni bi def ko fukki junni te moom mën laa fay junni te loolu mooy la ah mën laa fay junni nga nga nga ñëw ne ko fay ma mu ne la mënuma laa fay nga ne ko kon yokk naa ci ñaari junni nga ñëwaat beneen weer nga ne ko ñetti junni la nga war a jox de mu ne la ah aw matuma de nga ne ko kon yokkaat naa ci ko juróom ngay dem ba mu nekk fukki junni te moom mu ngi am problème mu junni fu mu jëm ah ndeysaan loolu mooy sunu problème ak Europe ak nangam nangam da ngay dégg ñu ne état Afrique yi li ñu yoral Europe li foo ñu yore. ak banque mondiale ak ay FMI ay riba kese la xam ngeen ni milliards yi ngeen di dégg su fekkoon lu dagan na kon dëkk bi suqaliku na mais daa daganu dara daganu ci ndax indi ay milliards ne leen ay milliards a ngi nii mën nañ laa dimbali ñu jox la ko léegi mais da ngay daganal góor jigéen ngeen di signé góor jigéen léegi ñu jox la ko milliards yi suñu état yi noonu la di wala da ngeen di dàq seen travailleurs yi ngeen wàññi leen. wala da ngeen di tëj société sàngam ak société sàngam ngeen jël société yooyu tëj ñi fa doon liggéey yëpp torox ñu jox leen xaalis bi yéen yéen a ngi dund ñee di torox te xaalis bi milliards yooyu kenn dañ koy dégg rek ci rajo bi Sénégal tey problème milliards yooyu lañ am da ngeen ne milliards yi ngeen di dégg dëkk bi aajo woon na ko mais lu tax du feeñ mooy alalu riba la alalu kasara la baaxul musiba la amul benn njëriñ noonu islaam nag dafa yëwin xoolal sax waa ji mu ne waa ji nga xam ne dafa amoon bor war a fay 5000 bi amul yàlla ne xaar leen xaar leen ba mu yomb gis ngeen lislaam mosul teg nit lu metti diine lislaam diine bu yomb la jàng ngeen yàlla mu ne yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yàlla nee na lu yomb ci yéen rek laa bëgg lu yomb lu yomb kese yuridu llahu bikumul yusra yàlla nee na lu yomb laa yéwén ci laa bëgg ci yéen kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun wa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun munoo woor sax da ngaa feebar wala da ngay tukki yàlla mu ne jëlal congé xoola buur bi munoon na laa da ngay war far force war far force ah da nga feebar ñu ne far force da ngay woor yàlla mu ne déedéet bu mu woor da ngaa feebar sa yaram ñu ne la jàpp munoo jàpp ñu ne la tiimal jarul ngay laal ndox sax tiimal munoo sangu ñu ne la tiimal munoo julli taxaw ñu ne la toog taxawal wéeru munoo taxaw wéeru ñu ne la toogal te doo wéeru munoo ko ñu ne la toogal wéeru munoo ko ñu ne la defal li nga ko mënee kon ban diine lañ yor est-ce que bu déggoon diine bi kon dinañ am problème mais maa la saf dégguñu ko da nga ci gis sax yenn saa yi kuy def loo xamante ne lii diine bi santaane ko te mu ngi jàpp ne lii moo baax di dëgër dëgërlu di jéem a jàmbaar fekk diine teggiloon na ko loolu ndeysaan xool yoon mu ne laysa min al bir as sawm fi safar bokkul ci teggin xam nga nga tukki woor nit dina ko mën mën ngaa jóge fii léegi di tukki di dem ndar ñu tegal la 4-4 boo xam ne sam waay balaa ngay egg Dakar nga egg ndar bu yàgg ah kooku mun na ne non man awma problème mun naa woor wala nga nekk ci avion fii léegi war a dem Casamance ñaata minutes nga koy def 30 minutes minimum 40 minutes nga yegg kooku mun na ne man mënuma woor waaye yonent bi nee na déedéet loolu du teggin wooral ndax yàlla dooru laa may ba pare nga ni yàlla li ma may duma ko jël laysa minal bir as-sawm fi safar bokkul ci teggin ngay tukki di woor bokk ci gis nga loolu sax da nga war a dog yemu ci loolu de mu ne la wàññil julli yi nga doon julli ñeent ñu ne def ko ñaar xol bu dee jigéenu wérul la mu xam ne li ci biir bi wala moom ci boppam ñu ne ko bul woor waaw kon kay diine lislaam dafa yomb kon nag ñi naan yii seen diine ji yéen dafa metti diine bi tàng na lan moo fi tàng lu fi metti anamu lan la soo jullee suba kan ngay julliwaat ñaata mi ñaata waxtu moo fi dox boo jullee tisbaar ba pare balaa ngay julli tàkkusaan ñaata waxtu diggante tàkkusaan ak timis diggante timis ak gee diggante gee ak suba bu sobe taqee sa yaram nga sangu bu dee ci yére bi la nga fóot ko am na ñoo xam ne xeet yoo xam ne sobe bu taqoon seen yaram dañuy kuppati dañuy kuppati yére bi fi sobe bi taq ci yére bi da nga koy kuppati sànni ko mun yàlla defoon loolu tey ne fu seen yére taqee sobe kuppati leen ko mun fii sobe day tax ci yow nga dem sangu nga dem jàpp nga dem kon kay diine bi dafa yomb moo tax yàlla mu ne kii nga xam ne dañ ko fa amoon bor ci riba mu war a fay bopp alal ji lay fay bu mu fay riba bi te su fekkente ne amul dafa nekk ci xat-xat fa naziratun ila may sorotin nañ ko xaar ba mu yomb ba mu am mu daal di fay ay intizaarul dañu xaar lan la ñuy xaar ci ki nga xam ne moom moo amoon bor ila an yassara allahu alayhi ba yàlla yombalal ko ko fa yu'tikum ra'sa malikum mu jox leen seen bopp alal 5000 la woon 5000 bi nekk riba ba mu nekk 50000 léegi nag borom riba ba tuub na ki waroon fay amul ki waroon fay léegi nañu xaar ba mu am mu daal di fay ñaata 5000 ndimbal la ci waa ji amoon bor ndimbal la ci ki leble woon nan la nekkee ndimbal ci ki leble woon kenn dina ne ah kooku kay du ndimbal ci moom ko déedéet ndimbal la ci moom parce que lu bon la doon def lu araam lu amul njëriñ yàlla subhanahu wa taala génne na ko ci ndimbal la ci kee leboon bor ñaata la waroon fay kon gis nga diine diine ci ñaari wàll yépp la la baax rawatina nag ci ñi nga xam ne dañoo néew doole kon diine lislaam diine yi ñu néew doole la fekk na jaam yi lan la def fexe ba jaam amatul mu fekk jigéen ñi ñu leen di toroxal lan la def mu fekk xale yi ñu leen di jur di leen suul mu tere ko mu fekk nit ñi ñépp nekk ay njaay àll di def lu bon mu fexe ba nit ñi di baax ma ne bu loolu sax du affaire yàlla bu fekkoon sax du affaire yàlla waaye diine lislaam ñun dañ ko war a ndamoo ndax diine lislaam moo ñëw pour nit xam moom mooy kan xool xool léegi li nar a xew góor ak góor di sëy laa ilaha illallah yéen seen digganteeg yàlla loolu lu ci rafet góor ak góor di sëy góor ak góor moroomam jigéen ak jigéen moroomam fii ana mbànneex ana lu fi rafet lu dul alku lu dul bon lu dul nar a texee di waaye xam ngeen ne lii dafa rafetul sax xoolal sàngara benn borom xam-xam bu tudd Abdul Hamid Kis mu ne yàlla lépp lu mu tere rek da nga naan cam wax leen lépp nag lu yàlla tere na ma kenn wax lu yàlla tere mu am njëriñ amul njëriñ lépp lu yàlla tere amul njëriñ dara te lépp daf lay ñàkkal fayda lépp lu yàlla tere nit mu tere jullit su ko jullit toppee ba ci biir day fekk lii daf lay ñàkkal fayda moo tax sax gis nga boo koy def souvent dafay nëbbatu léeg-léeg nga dem ba fu ñu la xamewul léeg-léeg nga dugg ci place yu lëndëm bañ nañ ko sax ba fi ñuy defee lu bon làmp yu lëndëm lañ fay def pour kenn du xàmme kenn kenn du fa def làmp yu leer kenn du indi tamit fi ñuy defee lu bon ci digg dëkk bi ñu ne fi déedéet dañuy dem ba ci ay tefesu géej ak ay ginnaaw ginnaawaata ak ginnaaw suuf si ñu tabax ko foofu ci ruq yu xola yoo xam ne gis ngeen defi lu bon kan mooy dem jàkk dina bëtu kan mooy dem di liggéey dina bëtu kii def lu bon rek gis nga baaxul yow sa bopp xam nga ne baaxul bi nga ko jógee di ko def moo tax ñu ne lépp looy def te sa conscience bi tranquillul bu yow nga bàyyi loolu baaxul da maa yaribuk ilaa ay baaxul xadis la islaam a ngi noonu mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne ndeysaan gis ngeen yéen yéen ñi doon leble riba yéen ñi doon jëfandikoo riba mu ne wa anta saddaqu sax xayrun lakum te sax alal jooju noonu la ca tegu ngeen saraxe ko moo gën ndeysaan wa anta saddaqu wa anta saddaqu ngeen sarax alal mu'siri ci waa ji am jafe-jafe bi tarki ma lakum alayhi fa zalika xayrun lakum gis nga 5000 boobu sax nga xam ne dafa demoon nga koy yokk ba mu nekk cinquante mille tey nga tuub ne ko waa léegi alhamdulilah tuub naa léegi cinq mille nga ma war a fay yàlla ne na cinq mille boobu sax nga baal ko ko moo gën wa an tasaddaqu ngeen saraxe ko xayrun lakum moo gën ci yéen ñii gis ngeen islaam allahu akbar ba mu la teree riba bi ba pare bor bi nga xam ne dafee yàgg ba waa ji mënu la koo fay yow nga koy double di ko double ba mu nekk ñaar fukki junni xam nga ne waa ji bu mu noon bu mu noon fay du yegg ñaar fukki junni ku la mënta fay 5000 ndax mën na laa fay fukki junni wala fi dañ naan bala nga ne naam ne fa yàlla nag ci mbaaxam ak xam doomu aadama yi mu ne wa anta saddaqu ngeen saraxe même sax 5000 ba wa an tasaddaqu ngeen saraxe ko xayrun lakum moo gën ci yéen in kuntum taalamuna bu fekkee xam ngeen allahu akbar tey sunu borom ndeysaan mu ne wa huwa xayrun lakum moo gën ci yéen wa an tasaddaqu ngeen saraxe bi tanaazuli ngeen wàcc an duyunikum ci seeni bor kulluha lépp ngeen bàyyi ko tatxiiran li amwaalikum ngeen setal seen alal nga bañ a jël sax 5000 ba nga xam ne lebale nga ko woon te ci riba la woon mu ne nga bañ koo jël sax di ko dugalaat ci sa alal mu koy yàq yow kay fi mu nekk bul dugalaat dara lépp lu jotoon a dem arrêté ko foofu bu indiwaat dara di ko dugal ci alal ji ndax ci riba la riba la bàyyee ko ngeen saraxe lépp moo gën dara ngeen bañ koo jël wa an tasaddaqu ngeen saraxe xayrun lakum moo gën ci yéen ngeen bàyyi ko ndax mu laabal seen alal ngeen bañ koo dugal ci alal ji mu setal ko waaye mu setal seen bopp yéen ñii mu laabal leen la la leen laabal min asaari sayyiati ci taraas ci jeexitalu lu bon li ngeen doon def ndeysaan bi yàlla noppee ci wax loolu mu ne in kuntum taalamuun wax nañ sànq ne in xarfu lan la mooy in kuntum taalamuuna bu fekkoon ne xam ngeen kon wa an tasaddaqu xayrun lakum su fekkoon ne xam ngeen tiyaaba yi ngeen ci am yërmande yàlla ngërëmam ak kontaanam bu fekkoon ne xam ngeen loolu kon da ngeen di saraxe da ngeen di saraxe cinq mille bi au lieu ngeen jël ko di ko dugalaat ci seen xalal borom bi bi mu noppee ci loolu aaya bi moom moo mujjee wàcc ci alquran aaya bi wattaqu yawman turjauna fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun aaya bi moom mujjee wàcc ci alquran ban aaya moo njëkk a wàcc iqra bii moom mujjee wàcc mu ne wattaqu moytandiku leen ragal leen yawman bis boo xam ne yéen ñëpp turjauna fihi dinañ leen ci delloo ila allahi ci yàlla moytandiku leen bis boobu de bis buñ leen di delloo ci yàlla kan mooy wax yàlla est-ce que xam nañ yàlla màggaayam ak kattanam ak dooleem yàlla mu ne moytu leen bis buñ leen di delloosi ci man loolu jar naa préparé de wattaqu mooy sundiku leen yow man bis boo xam ne turjauna fihi dinañ leen ci delloo ilallahi ci yàlla ndax dañ leen di delloo rek mu jeex mu ne déedéet mu ne summa topp tuwaffa danañ matal danañ fay kullu nafsin bépp bakkan maa kasabat la mu defoon kenn ku nekk li nga defoon ci say jëf yàlla dina la ko fay te bis boobu ñu lay fay jëf ji waxum ñoom ñoo ñu jëfoon jëf yi laa yuzlamuun kenn du leen tooñ ku nekk li nga defoon lan lay def neneen yàlla jëgal la ilaha illallah mu ne wa haza tawjih lii orientation la alladi orientation boo xam ne xamalatu hazihi l aaya aaya bi yenu na ko nee na aaya bi aaxiru tawjihin mooy aaya bu mujj bu wàcc buy orienté jullit yi aaya buy wàcc di orienté doomu aadama yépp bàyyi ko ci sunu borom subhanahu wa taala mu ne is haasihi ndax lii aaxiru ma nazala min assama aaya bi mooy aaya bu mujjee wàcc jóge kaw asamaan aaya bi la ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam suñ la laajee ban aaya moo mujjee wàcc bàyyeekoo ci asamaan asamaan li fa mujj ci alquran muy wàcc wattaqu yawman turjauna fihi ila allah la mooy te ndiku leen bis mi ñu leen di delloo ci yàlla ndeysaan muy bis boo xam ne liir bu ci juddoo day bijaaw yawman yaj'alul wildaanu silban bis boo xam ne tara naasa sukaara wa maa hum bi sukaara da ngay gis nit ñi ñu mel ne dañoo màndi waaye màndi wuñ de bis boo xam ne tazhalu kullu murdiatin amma ardaat képp ku doon nàmpal bu bis bi nee këtt da ngay sànni li nga doon nàmpal dootoo ko tal bis boo xam ne ku ëmboon nekk ci deux mois sax wala benn mois da ngay avorter fokk li nga juróon day li nga ëmboon day génn lu ko waral ñëpp a tiit ndeysaan ñëpp bis boobu sax suuf dootul mën a téye nit ñi day génne nit ñi naan suuf looy def nii wa qaala al insaanu maa lahaa suuf loolu tax nga ñuy génne suuf ne yàlla moo ne ma génne leen du yem ci loolu de yow ma izin tuhaddisu axbaaraha su day nettali ay xew-xew yi xemoon ci kaw kaza lii ak lii ak lii ak lii moo xewoon ci moom ndax lan yàlla moo ko wax loo muy wax wattaqu yawman turjawna fihi ila allah mooy tundiku leen bés bu ñu leen di delloo ci yàlla mbokk yi nit bu ñu koy delloo ci yàlla noonu koy delloowe dan lay yeew ba nga dëgër bu la tegoon sax ci benn espace bu yaatu boo gisee loo xamul nga daw wala waaye xoolal bu ñu lay yeewee ba pare dañ lay ñëw gas suuf si ba mu xóot ñu daal lay dugal ñu wàcc suuf si sa kaw ba pare ñëpp ñibbi yow kenn kenn kenn kenn nga dajeeg yàlla ndeysaan dafa am saxaaba boo xam dañ ko ne waaw yow dan moo la tiitloo mu ne ñetti guddi moo ma tiitloo ñu ne première guddi bi lan la mu ne guddi bi may njëkk a fanaan ci bàmmeel xaw ma lu ma fay fay tey kenn nit ñun bu ñu la woon da ngay dem ba fonga limi nga fanaan ci néegu ñax yi yow kenn néegu ñax yoo xamante ne boo toogee ci biti boo nekkee ci biir néeg bi bu bu jant bi bu weer wi génnee bu weer wi génnee da ngay gis lumière weer wi ci xarante kirinting yi ñu ne la fii ngay fanaan de am naa sama benn mbokk oustaz boo xamante ne bi ko gouvernement bi jëlee ci vacataires yi ñu yóbbu ko ci àll bi fu sori mu may nettali quoi tumuranke nu méttee mu ne mu dem fanaan ci benn néegu ñax koo xam ne Dakar musul génn Dakar mu ne mu tëdd ba jàgg rek mu nekk benn mbaam di ŋaax xiix xiix xiix mu ne munul nelaw mu ne nii mu xool mu gis ay ay ay xar-xar quoi ay xar-xaru lumière ci kii nee na rongoñam yi moo génn rongoñ yi moo génn te wala xaalis lay uti de mais rongoñ yee génn te xaalis lay uti léegi nag ñun xoolal bàmmeel nga nar a tëdd bàmmeel doo mën a wëlbateeku doo wëlbateeku ndeyjoor doo wëlbateeku càmmoñ benn côté lañ la tërale te mooy ndeyjoor nii nga nar a tëdd ba yowmal qiyaamati jot nii nga nar a tëddee amul wëlbateeku amul wax amul nii nga nar a nekk ba yowmal qiyaam nii lan lay nii nga nar a dajeeg yàlla wattaqu yowman turjawna fihi ila allah mooy tandiku leen bis mi ñu leen di delloo si ci yàlla bis bu ngeen di dellu ci yàlla allahu akbar mën nañ yàlla baal mu ne suma topp tuwaffa danañ matalal danañ fay kullu nafsin bépp bakkan maa kasabat la mu fàgg woon jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne waan laysa lil insaani illa ma saa ku nekk li nga def rek loolu lañ lay fay kullu nafsin bi ma kasabat rahina ku nekk li nga def loolu lañ lay tayle amul leneen yawma laa tamliku nafsun li nafsin bis boo xam ne bakkan du jëriñ beneen bakkan gis nga jëriñante bi fii la yem àdduna allaaxira buñ fa nee cëpp kenn mënatul jëriñ sa morom kenn mënatu ko de fii la yem bis boobu kenn ku nekk ci nit ñi yàlla nee na tey lañ lay fay tey lañ lay matalal li nga doon def summa tuwaffa kullu nafsin maa kasabat léegi nag yow boo yaakaaree ne ëllëg àllaaxira am na ñu fa nekk ñoo xamante ne mën nañ laa defal dara te yàlla nee na ku nekk dañ lay fay tey li nga doon def loo def loolu nag ndax mës nga ko fa am ndeysaan góor gi ma nekkaloon tey mu ne ma ku nekk li nekk ci sa biir bi moom ngay géex dégg ngeen wax ku nekk li nga lekk ba ngeen gis ku añalaax di géex ceeb ku nekk yaa axi li ngay géex mooy li nga lekk kon bu ñu demee ba àllaaxira ku nekk li nga liggéeyoon loolu la yàlla di fay xam ngeen lan moo doy waar ci aaya bi wahum laa yuslamuun kenn du tooñ kenn xoola yàlla du tooñ du fekk ku deful woon dara mu ne ko bismillah ñëwal dugg àjjana yow ndax yow defoo woon dara mu fekk ku doon def lu bon mu ne kaay dugg àjjana ku doon def lu baax mu ne kaay dugg safara loolu xel nangu na ko wahum laa yuslamuun yàlla du tooñ wa ma rabbuka bi zallaamin lil abid yàlla du tooñ jaam yi lu tax inni haramtu nafsa ala nafsi inni haramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazalamu yàlla nee na man dama aramal sama bopp tooñ du ma tooñ wala yazlimu rabbuka ahada yàlla du tooñ kenn lu même bu fekkee lu toll ne misqaala zara la waa ji liggéey yàlla daf koy fay yàlla du tooñ moo tax mu ne mu ngi noonu ay du caax yàlla nee na wahum ñoom keroog bu ñu leen di fay laa yuslamu ne kenn du leen tooñ kenn du leen wàññil kenn du leen tooñ ba mu mat sëkk li nga defoon rek la ñuy laxas ba mu daal la koy delloo ndax yow yaa ko defoon kon mbokk jullit yi doomu ndey yi lii moo doon darsu tey ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp assalaamu aleykum wa rahmatullahi